le 17 après le 17. dafa toog ci digg mbooloo mi yëpp xas seen xas bu ñaaw la leen wax. après le 17. ne leen giir bu bon ngeen bokk giir bu bon giiru lekk gatu suuf la leen wax lii la leen pro wax te ba pare jëji yow naa la wax leen jëji diggante mbay peex ak Macky Sall yaa ci bëgg a dugg foofu nag laa yam. ah kon déglu nga seen xulóom yi saytaane la Miranda ñëwal bëgg na ma jaxase nag Miranda ñëwal. salaam sonko sonko sonko. sonko sonko sonko sonko. lii kaala de. da wax da wax ay yu am je pense que ni man li may wax rek mooy je pense que ni meilleur youtubeur de l'année tey ren am nga ku la détrôné ren moom mënatoo nekk meilleur. ren kenn daj nañu ñun ñëpp. ñun ñëpp maag yow ak keneen ak keneen laa géré rek ñun ñëpp Macky taxaw na ci kanam. daanaka nga baal na bi mais boobu moo tax Jiji di ko jaxase ak Mbaye Peex fi mu toll nii parce que xam na ne Jiji xam na ne yàqu na amatul buzz moo tax mu koy jaxase ak Mbaye Peex mais jotewu ñu dara. dinaa ko yàqal de comme daa ñëw bëgg ñoo yàqal suñu teraanga dinaa ko yàqal de. Euh, El Bachir ñëwal El Bachir ñëwal Miranda dafa appel. waa waa mais grand man damaa kontaan ci yow quoi maa ngi doog yëg sa laaj fi ne nii ñi gars yi di tere saaga wala gars yi di wax ñuy maman dañuy dañuy dañuy daqaat xorom rek ñoo aaye. mu yow ñooñu xooluma leen sax. waaw xorom waaw ay ñoom ay ñoom François LNP ay consort googu ñoo ñëpp maman kenn du leen may jàmm man mii fi ne nii dama leen di rëbb rëbb dëmm yi laa tuddee rëbb dëmm ay di jéem a buruxloog di jéem a xaj-xajloog di jéem a kii moom jeex na tàkk fi mu nii moom ah ren rendi rek rendi rek rendi rek. man de dama leen di rendi ba tëdd seen duñ leen may dara may dara dara même bu leen kaw mayee mayee dara man de ma part personnelle du ma leen may benn dërëm. waaw loolu loolu loolu laa la bëggoon wax quoi fi nekk moom baax na maa ngi lay déglu la maa fi nga nekk moom baax na lool sax. macha allah macha allah di lépp. macha allah macha allah. acca Bralion ñëwal. sonko sonko sonko. sonko sonko sonko sonko. ñëpp. waaw man jii man moom xam nga ñun démb fii la fekk quoi. kon démb dafa ñëw tey soog a tey soog a egg xam nga bi ñuy bi nekk si internet bi néewoon nañ ci doole trop am benn groupe boo xamante ne dañoo waxoon groupe François Hélène Gueye comme ni nga ko waxee ñoom Pape Omar Diaw ñoom Pape Omar Diaw ak ñoom Californie euh, consort boobu tey. ak ñeneen ak ñeneen ñoom fuuta tampi liñ fi wax yépp ñu ngi fii man nag sama wax du bëri ins bi ñu ngi jublu si benn bés bu am solo muy le 17 bu yàlla defee le 17 jàll man loolu bu ba ma ba ba yàlla may ñu ndam ba nga xamante ni majorité tey li nga xamante ni kàddu yi ñu sekkoon ak tey wax taf taf jox nañ leen ni ñu bëggoon ñoom ñoo demandé président ñu jox leen ko ñu demandé ñu di député te dinañ leen ko jox ba ñu ba wisal leen après le 17 ils n'auront plus excuse et que comme nous nga ko waxee buñ fi gisee ki nga xamante ne démb tey ñoo fi taxawon di ñu toroxal di ñu saaga ji di ñaata at demulo Sénégal ñaata at man mi di wax ak yow dawma Sénégal parce que on a reçu tous des menaces ndax lan dañ ñoon xeexal loo xamante ne tey moo doon tey tey lii tey ñi doon ñaan yàlla mooy tey fii Sénégal fi ñu ko bëgg a jëmale ñooñu nga xamante ne tey ils avaient des des des des idées tellement noires seeni pexe tey bu sotti woon muy yow muy man ñun ñi ñi tey nekk fii di wax kenn tey du fi amee ba di fi waxee léegi comme dem nañ ba xam ne tey ñàkk nañ loolu yëpp ku nekk di jéem a buruxlu man je vais pas parler lu pour le moment suñu parti mais à partir le 17 ba yàlla may le majorité écrasante li ñu bëgg mooy tey képp ki nga xamante ne takkoon takkoon nga tey si diggante Adji Sarr si diggante lépp li nga xamante ne tey ay doomu jàmbur dee nañ ci ay nit dagg nañ ci seeni tànk ay nit tey manqué nañ ci loo xamante ne dootuñu ko amati ba ilaa abadan lolu nonu tay buñ ko wul man de personnellement je retournerai contre eux

c'était des gens comme yow man ñun la pour que pour que leur âme se repose en paix pour que leur âme repose en paix faut que justice am te dañ ko amul ku si gën a ndaw ay Abdou Nguer ak ay ñoom Sylla Gujjaak képp ki nga xamante ni tey wax nga si def nga si la nga xamante ni tarafatal ay ni kay ba nga xamante ni ay bakkan rot na si suma la man de wax naa ko def naa ko ay live di ko wax man personnellement bu ma jàkkaarloo ak ñoom maam ñoom face à face ay cours ay cours mooy njëkk daal dal balaa ay wax di am. Parce que ces gens-là, man, c'est comment nous avons Safan. Parce que c'est eux qui ont créé Safan Sama Birhol. Parce que politique Sénégal, il y a am politique nit ñi di xeex di mais li Macky Sall andil Sénégal durant ces 12 ans quel musu ko dund ciel ouvert avec des armes à la main à ciel ouvert Sénégal mel ni jungle ni gis ay nit ni leen rey

faluma Diomaye faluma songo pour un développement du Sénégal certes c'est important mais man dama leen fal uniquement pour ni may jàppal waa APR di ko di len tëj par kenn kenn Say nous teyé ben membre APR amna ben point noir boo xamanteni ni na sama biir xol j'ai tellement le cœur sombre tellement de de vengeance dans la tête tellement de haine dans nos cœurs pour que justice soit faite Inch'Allah vous rabbi le 17 vous obtenir une majorité sachez que vous avez maintenant li Vous vous ñun ñi Sénégal les gens se sont divisés les familles se sont divisées divisé avec plein de gens rien ne sera plus comme avant la justice soit faite kon jiji jàppal na li ngay xeex doo si mës a wét te yow xam nga xam nañ dembou la woon tey soog a ñëw man yow lay déglu lépp li nga xamante ni tey yow xam nga xam nga ko nga wax o ñàkk ko wax xam nga li nga xamante ni tey moo nekk si biir xol yi nos nos cœurs sont remplis de de de de haine et que ça attend que une chose justice soit rendue kon nag ñii di ñëw di jéem a jaay ji di François Hélène Californie ay Ndiaye di Ndiaye fi waxul lu ñaaw fi quelle trahison bi nga jëlee tey jiji yow nga ko loxo Akhenaton que ko loxo il vous vous a trahi à ciel ouverte kooku tay mom moy retourné tay ñëw naan day jéem a defar lu rafet dembu barki démb fii manifestation APR bi Fatou Fatoumata Ndiaye était là kon tay li ñuy mëna ak Gabriel aussi on n'oublie personne on n'oublie personne kon tay buñ fi jéem a ñëw di jéem a jaay man mom duma wax ak wax du damay damay arrêté Il y a beaucoup qui veut contribuer tout ce que je vais dire moy que ni Inshallah après le 17

waaleykum salaam waaleykum salaam Sonko Sonko ci loo nekk. Sonko Sonko. <laughs> Ah, man moom half Gambie half Sénégalais la. macha allah macha allah ah, ma nekk koo xam ne depuis day one maa ngi topp ah, lii bi affaire ma nekk patriote. maa ngi nii Angleterre foofu laa nekk bu dee Sonko dama ko bëgg ba nga xamante ne ñëpp am nañ ko sax. macha allah macha allah. ñu sew ci dara ragaluma ci dara dem naa ba dig suma famille ma ne leen su Sonko jëlee réew mi. dama leen di jëlee Gambie yóbbu leen Sénégal ngeen dëkk. macha allah macha allah xool bi sax moo fees mënu maa wax at the moment bi laaj. macha allah macha allah ah, te loolu bu mu amee ci laa jël suma ah, de foofu laa leen yóbbu. macha allah des wan leen man bëgg sonk ba lépp lu takk ci sonk rek bëgg naa ko képp koo xam ne dangay wax ci sonk lu métti duma la seetaan bay xam sax li ngay wax. macha allah may dégg kon ah, ñi nga xam ne xam topp nañu bu yàgg ci suma. lii di TikTok gis nañ ne man all the time damay share about Sonko dama ko bëgg te yow tam dama la dee seetaan torop sax macha allah macha allah moo tax xam nga soo déggoo nit ñi duñ la bëgg te Sonko macha ko depuis ci njëlbeen xam nañ ne sonk am na lum leen xamal bés bu jëlee réew mi fen yi fa nekk ak sàcc gi ak ak naa naafexe yi ñu fa nekkee yëpp Sonko dina ko xeex génnee ko fa doxal dëgg ci réew mi te ñoom bëgguñu dëgg looloo tax ni bëgg koo sànq amoon na ay sëriñ yoo xam ne ne yéene wuñu woon Sonko mu yeewu sax ba génn kaso te tey ñoom ñëpp tey këccaat nañ Sonko indi ko ndax seen fexe jubut xam nga kon li ma lay wax rek nit ki soo nekkee ku dégg foog nga am ñi lay bañ nga am say noonu bul seet ñi la ñi lay topp pour di la wane dañ laa bañ déedéet yow teetal sa diggante ak sa borom nga xam ne ne yow ci dëgg rek nga taxaw. macha allah kon yow bul ragal ku wax dara te ñeneen yeneen yi ngeen di woo nii yeneen da leen di jox bës wala di leen jox. loo xam ne pour nit ñi di leen gëstu fàtte leen te ñu concentré li am ni ñu focus xam nga su demee ba loolu passé bu soobee yàlla di ngeen gis dëgg bu wér keng bu taxaw seen kanam yéen xamu leen Sénégal lan ngeen am yàlla li mu leen defal benn président ngeen laaj yàlla may leen ñaar te eh, kii ni ehm, am na benn sëriñ bu waxoon Sénégal dina am ay président yoo xam ne ay xale yu ndaw ñooy ñëw. borom kawar yi ñu kukku lay nekk. maa ngi Samba Diallo ñoom ñooy soppi Sénégal. macha allah Sénégal suñu wàññee wax wallahi dinañ gis loo xam ne ci biir dëkk bi duñ ko ko foogee. macha allah xéewal ak mooy ñëwal Sénégal Sénégal coonam jeex na waaye dañu war a jàpp nekk benn bañ a toppatoo ñoo xam ne ne benn group bu ndaw bañ a yàq seen seen seen lii nii. Euh, nga xam ne loolu lañ liggéey lu yàgg. understand man mm-hmm. lo la doon contribute pour suma wax bi suma hol be bee fees dama content ha mo wonena ding ma jël ah bañ jël yow kay léegi damay abonné ci yow sax dina lay jël say su nek billahi thank you ya, very much all of you man dama content pap torop Pape Ndongo Pape Ndongo kii suñu mbokk Gambien la dafa togon wat ne Ousmane bu jëlé réew mi day dem Sénégal wutali wutali fa kër ba Ousmane gagné da jël ay mbokam yobulen Almadi da ngeen fa fa ngeen dëkk waaye kii mënuñu koo fay kii kii moo yeyoo teral teral na xaaral ci moom ba pare soog a wax ak moom bu ma jëlee sama temps de parole wax ci moom. mu ngoog aca ngom teraa nga ñëwoon ngom teraa nga ñëwoon jana doo wàcc jana doo tëj sa micro ngir yàlla jana pël pël pël xejul ci réseaux sociaux nag pël sonko sonko pël xajul ci réseaux sociaux de mang lay ziar motax maké ngay wacc audio ba ya, zéro <laughs> jël ziar na la ñu ngi lay délo ziar mais li mu bëgg wax len la hmm manam sénégal dafa tolon ci guddu yo xamné da doon foyé sun réew mi parce que réew ji kenn du ko amna ci lo xamné mbirum askan la suadu sonko sonko amna ci lo xamné mbirum askan la ñoo bu réew bi demee ba toll boo xam ne suñu ay morom dañ leen jàpp di leen rey ñoo xam ne ci réew bi lañ dëkk ay doomu réew bi encore comme ñoom taxaw di ko rafetlu di wax ci ñoom wax ju ñaaw ki nga xam ne dafa jóg ngir Sénégal baax ay mag ak ay xale yu ndaw yoo xam ne xaalis lañ gëm gëmuñu seen bopp topp benn nit di yàq deram subaatu ngoon ba ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon militant yi Pastef bëgg Ousmane Sonko même bu nekkul militant sax nekk sympathisant wala leneen bu ñu bëggee attaqué wax ñu lu lu metti duñu saaga ndey carrément de mais ki nga xam ne moom lañ bëgg def ko suñu biir xol moom la ñuy dem taf saaga wax lu leen neex. nga mhm. xam ne guddi googu yow jooy rek moo lay dese. wallaahi ji man yàlla dafa dogal ñetti at a ngi nii. billaahi wallaahi du télé du dara lu may siiwul lu dul yow Akhenaton mu laaw mërgël ak kaay soof billaahi yow mii maa ngi koy nañ déggante. Mhm. même ci manifestation yi. bi nga xam ne sama rak doon ko ci bal yow mii laa woo otal la ko direct na li ma yoroon def naa ko ci manifestation yi parce que suuf boobu même leen manifester sama oto laa vidé essence bi ñu manifester ko ndax oto yi kenn wul woon jaay essence yooyu. dëgg la essence dëgg la. suuf boobu yaa ma yónnee soixante dix mille yow mii. macha allah yaa ngi dégg. Mhm. même bi ma jàppee ci kaso bi bi ma génnee def naa huit mois kaso bi ma génnee yow laa njëkk a waxaat encore nga dama gëj naa laa dégg. man la nii dafa demoon dañ maa jàppoon le 31 juillet suur bi ñu jàppee Ousmane ko suur hmm. bi ñu ko mën naa def ko. Hmm. dëgg la waaye dëgg réew mi kii la war a jaare baax ba faaw xamalu tax. Hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoo doon def jëf ak ñi doon wax ñëpp nan leen jubanti teg leen ci yoon. parce que fii est-ce xam nga ne lii bés bu jàllee ñu bàyyi leen ñu bokkaat ci ñun di dund comme ñun ni ñuy dund ci ci réew mi amuñu benn daan bu daal bu daal seen kaw. kenn ku nekk ci ñun danaan lépp lu xamante rek lii politique la rek jarul kenn di ci ñaaw jarul kenn di ci dem kaso jarul kenn di ci dee parce que da cay indiwaat beneen influence boo xam ne ñun ci seen bopp kenn dootul dem réew mi moo tax lii warul jàll président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye lii da ko war a corriger pour Sénégal baax définitivement ba faw te am naa ci yaakaar nag te pour mu am nag faaw ñu déglu lay wax ci xel maanaam affaire de ñun Sénégal gépp leen jiite instant bii nii nekkalul fi kii nekkalul fi kii déedéet doxewul noonu de ñun waxul pour ñun ñu def ku ma am ndey ak ku ma amul ndey mais ñun bu fekkee ñun ci seen biir dafa am pour nekkul ci yoon nan ko teg ci yoon mais ñii dañoo nekkul ba pare sinon dafay indiwaat beneen influence boo xam ne man de ay exemple Pastef laa bokk man damaa ñëw di attaqué waat ñeneen ak ñeneen ci opposition bi ñooñ bis buñu jëlee nguur gi ma waaw politique la woon xam nga affaire de politique la mën naa ñaaw tey mu rafet politique politique dafa santé ak loo yooyu xam nga ñoom dañuy def dara ba pare ñëwaat bëgg koo rafetal bëgg koo lewal lii nag warul jàll de warul jàll ñii nga xam ne ñooy Fouta Tampi ay xuuma Abdou ngeer ay Kalifon Sall ñi nga xam ne wax ju ñaaw dina wax nan ko ñu ñu toog di ko muñ ba yàlla saa borom ànd ak ñun tey ñooñu ñëpp nan nan ko corrigé waat parce que du dara loo xam ne doon nañ ko ci xeex lu dul seen intérêt personnel ndax ñoo ngi leen doon jox xaalis xooluñ ci woon réew mi te ñoo ngi doon beleese ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak président Ousmane Sonko chaque jour man ne yàlla xam na ne li ma ci gënoon metti mooy ñi nga xam ne parce que politique nag ñëpp mënuñ bokk fu ñu far loolu yàlla may ko kenn. Mhm. am na ci ñoo xam ne maa ngi koy dañoo bokk ci marché bi dañuy jékkee jékki indil la benn ne la xoolal lii ñoo la koy force wala ñuy estati ko gis ko. man loolu moo daan tax ma dal ci seen vidéo yi wala dara billaahi mais jiji ñii li leen di ñaan mooy lii nañ ko corrigé waat buñ ko corrigé wut itam aussi kon lii mën nañoo influencé ñun Sénégal yëpp ñun Sénégal yëpp lii mën nañoo influencé ba nga xam ne kenn dootu ci di xeex ngir réew mi kenn la réew mi dootu jaral mën nañ sax andi koo xamante ne nii pour Sénégal ko tax a jóg ñu sacrifié ko ñun askan wi ci boppam bàyyi ko mu ne ci combat boobu noonu loolu laa bëggoon wax jërëjëf Djibi. <coughs> jërëjëf <coughs> ah, defe naa Eva moo ci topp. Eva ñëwal Eva wala Binta Thiam Eva Eva Eva dama am gan nag de Eva Eva Binta Thiam ñëwal ah su suwaadu nee na bu ma wooyee sama doom sonko sonko laa koy nuyoo bu ma paree waxtaan sonko sonko laay tëjee Binta Thiam ñëwal soxna Binta. saxna binta ñëwal moom daa mel ni connexion am kiiwul de boo takkee casque dindi ko sonko sonko sonko sonko sonko sonko na nga def ñu ngi lay ñuy sonko sonko sonko sonko fépp sonko sonko sonko ayca ñu ngi lay déglu waa jigéen man na ku la yàgg topp yow kay topp dama ne kay fa ma numéro daan naa dégganteeg moom ne yow ku la yàgg topp laa wallaahi. macha allah ku baax nga liggéey man baalew ma de man sama wàll bopp baalew ma ndax dama di mag ba bare yaa ngi dégg ñeme ma oto police ñeme ma police saa yi ma mosaan génn laala tar bi bu ma ñëwee sama sukkar si yëpp léegi rek laa am jàmm sama sukkar si dal mais saa yi ma mosaan génn di leen marché. Pam yaa ngi dégg. bu ma ñëwee sama fit bi day dem laala ba suuka si yëg maa ngi doog am jàmm maa ngi doog am jàmm jigi wóor na yàlla Ousmane ñëw jàmm bi ñuy jàppee nag Ousmane Sonko bilaat sama suuka si quatre grammes la dem quatre ma dem tëddi hôpital xanaa maa gën a dee ñëpp yaa gën a dee ñëpp kay yaa yaa gën a dee ñëpp xam naa ko dina la tontu xam naa ko dina la tontu na rasulullah laala léegi léegi nii daa am jàmm de léegi da la suuf ba si xaw a daal mais jamono yooyu heure gu ma gisee oto police wala ma dégg veillé rek suuf sa samoon kanam. yow yow de wuute nga ak yàngoone nga xam ne fit wee gën a dëgër xeer ba ca ngor. léegi bu yàlla wàccoon sa mu wax ak moom. barki yàlla xoolal du ma ge du ma baal kenn kenn laa baalewul. bul baale bu ñëwee may leen na ko rek. Adji Sarr moom nañ ñu ko may rek mag laa de maa ngi soixante ans waaye Adji Sarr bu ñëwee coppareel bi laay dagg saako jox ko bu lekk. man ndogo dégg maire yi sax baale seen coppareel yi laay dagg saako bu mu mel ne gerte caam ko xam ko jox leen ko ñu lekk. ok yàlla suñu xol gi gi suñu xol dafa jeex tàkk tàkk tàkk tàkk. tàkk sax ah, rey suñuy saaga Ousmane Sonko saaga ku ne ñu saagal ba pare ëlbatiku naa dañu moral moral am fi de defante rek ñoom su fekkee ne ñoom ñu defanteeg ñoom nañu yow ñu ne soixante ans ñu defanteeg ñoom maa ko wax ñu doole de waaye billaay ak ñoo mën a dagg bajo bu ñu daggee seen bajo yooyu dootuñu ko defati coppati suñu yaay coppati rek lañ daan def dañuy jàpp bajo bi rek coppati ba ba nga ñu bàyyi la man ci loolu laa tàmmoon dañuy coppati yi ba bajo yi ñu saaf lii yàlla bu mu jeex waay naa ci yow nag man sa fan la yàgg topp allah macha allah yaa binte yow maa ngi abonné ci yow yow maa ngi abonné maa ngi doogu yow kay abonné naa léegi moom yow bu ma taalatee rek yëgal abonné naa ci yow mu ngi noonu maa ngi sa chéri maa ngi sa chéri man waata commencé séeréer teg ko bul xajal benn meer dégg kenn du dugg moom kay tëj naa bunt bi faam doo nga dégg nga bunt boobu tëj na jeex na man la bit tëccaat abonné ci man ma maa ngi ci yow jeex na taa macha allah macha allah kabada ñàkk ngeen yéen ñëpp yaa binte laa jël léegi kabada yéen ñëpp ñàkk ngeen ñàkk ngeen xëccoo bi bunt bi tëj na jërëjëf jërëjëf jërëjëf aja Pape Ndongo ñu may la tuuti eh, gars yi ngeen baal ma nag dama am gan ñu may Pape Ndongo après ñu mën a racc nag kon ni ràcc Ndongo li ñëwal xool ko kanam gi bere tap bere naa la kama da doon waaja wax gémmiñ gi ñu tëj ko may tapet laa wax yow ah njaago njaago sonko de moo ne Ndongo tapet la ah jaago ko wax mi ngi dara ci kaw mu nga gis ku juddoo tàkk kaw lax ndangaan sa fit dimanche loolu kañ musul am man kay li tax njaago wax loolu moo jaaxal kon voilà suñu sœur ngi ci suuf sax kabada na ngi allah jël naa ko saalum musiba laa fi andi rek keneen laa doon jël jël ko tey nag mu yàkkati ya yàkkati ya ma musiba <laughs> ya, njaago ngi di tuumaal njaago dégg mu ngi bind ci suuf jiji xam <laughs> jiji wax <laughs> moo ko wax moom kay biñ la woowee sax moins cinq rek nga dégg ko dañ la woo rek mu wax ko njaago maa ngi xaar ba nga miim waa jiji waaw ñu ngi lay jaar jiji rek uma ñun ñi kaa leen wax ak Seydina Ousmane nag lim bëgg nag lim bëgg daf lim bëgg Ousmane nag li muy def du yoon dañu waxtaan nag te yàlla rek tax ah kilifa gi yow yow yow Casamance yaa ko moomal sa bopp Kaolack ndangaan yaa ko moomal sa bopp Mbuur géej yaa ko moomal sa bopp ci waaw nag Thiès yaa ko moomal sa bopp léegi yow yaa nga départ fa waajam moom yow jàpp nga waaj ah duma nga ko na non xaaral nangu na Fatick exilé nga ko waajaa nga Maroc di jaay orange marocain léegi nag nga dem bay dëkk waaj xoolal fa la jëm fi may wax ak yow nii ma nga fa ma nga fay riir dëkk yi gën a ndaw ndew yooyu xoolal ay koccaar yi dëkk yi gën a ndaw ndawaat nga xam ne dafa war a romb jàll Ousmane bu ñëwé waat wa dëkk bi kër baari télé bi né Ousmane day taxaw wax ak ñoom ci force waaji nak mu ngi togn nak non day togn jàppale bu bëgg a day togn de Ousmane day togn ah. day togn ta kaay la ñu wax ak waaji nak ah waye nak waye nak waaji nak pam dong waaji dafa dafa neexut a muñal de déglul fi Adim Samb euh, santaat naa la gërëm na la kaddu gi nga wax Isma jom nek na kaddu gu rafet. dégg naa loolu it bi ma ko gisee démb ci ndaje Touba bi moom mu di as gor waaye yow it yaa si yaay gor te as gor te kàddu gi nga wax ah kenn ku ne waroon na ko déglu nag ndax àdduna dafa gàtt te it jarul ñaaw waaye daal yaakaar naa sa audio bi war na yaatu bu baax a baax a baax nit ñi delloo si seen xel te xam ne it ñi doon baax démb barki démb te ñu koy def voilà ñu ci def nak ah war nañ leen laat rek àdduna waaye kàddu gi daal rafetlu naa ko jeuf jere jeuf xaadim gor deug nga man ci audio bi lonkal audio président day rey day tëj de waaw waaw président day rey di tëj man moom yónnee naa ko boobu. léegi eh, eh, eh, xaaral teel ma audio bi damaa bëgg wax ci Ousmane tooñ ji muy fi mu toll nii ba pare <laughs> jëlal ma Saalum mu ngi ci suuf ma ne yéen ñi ci laaj bi nag maa ngi leen di tuubal di leen de ñun moom bu ñu tukkee nii lay demee de. ah dafa ma dafa mujjee soppale bu géwél géwélu tudd xaarit. <laughs> daa ne ko xaarit yow xaarit ma ko doon tagg démb ak barki démb. moom tey moo retourné a waaye lu ngeen fi yëgul nag xoolal bi nag ko am crédit nag mbay peex lay gaaruwaale de mbay peex tontu na. tontu na dina def dëgg la lu ma. sa astafurlah buñ duree jàmm ko addina. addina dafa gudd tànk. kaala de lu ñu la wax ne la mënoo doo ko du am rek bàyyi ba teg ci sa bopp bàyyi ba teg ci sa bët yàlla xam na ko di caaxaan. moom moom yàlla mooy karim. xaw ma lu mu mokkalul nag xaw ma lu mu mokkalul waaye audio moom Macky mokkal na ko trop. voilà mais seetlu seetlu nga li ma lay wax xaadim moo daan tagg Macky Macky di yëkkati di ko jox tey Macky mooy tagg xaadim mooy gërëm xaadim moo koy tagg ay di ko waxal baax baaxam. waaw léegi bu mbay peex léegi bu mbay peex waxee waxee ne Sonko lu wax dëgg la nag te mu doon wax bu ko fi kenn tudd ah du changé waaw léegi léegi dañ leen wax ci tooñ gi Seydina Ousmane di tooñ nag jiji suñu aaj nag neexul ba neexul mais day dugg ci ay garde jàmbur quoi non day ah yow xam nga fan la jëm ni yow xam nga fan la jëm laaj ma rek ma wax la man mi fa xam waa xam mu jëm mais man daf ma tooñ tooñ boo xam ne da ngeen ko war a lijjanti te après le 17 man dinaa ko lijjanti nee na damay mbaq suuf Bassirou Diomaye day maq suuf sama maam day maq suuf. ba pare mu dem ba digg Casamance ci digg mbokk bi mu mën a yem cere rek ngeen di dundee. non Ousmane yarawul de. kenn kii bu amu doon ci réew mi rek ko waroon a créer xam nga lu tax ma ne la day tooñ Ousmane dem na Fuladu raafa Fuladu bi yëpp wàcci ñëw Tamba jël xoolal te li ci gën a garaaw du loolu de day dem ba sa dëkk. nga dem ba dëkk bu mag bi gën a capital bi raison bi mu def fa meeting xoolal mu ngi noonu départ jaar na jëm na Kothiari jaar na Bala xoolal ma nga Kidira mu ngi soog a génn Kidira xam nga fu jëm nii doo ma laaj fu mu jëm. fan la jëm. <laughs> foo ñu waxoon doo fi dugg <laughs> Bakel la jëm nii. Bakel. <laughs> Bakel. mbaa ñibbi na ak Barthélémy Dias. su jógee Bakel xam nga fu muy jaar day ñëw xorke day ñëw ci dëkk yi ndaw yi rek ñoom xorke jeere Fuuta la jëm ci titre xolal ci digg titre foncé Macky Sall bi fi la jëm. non bu bu fa fekkee Farba Ngom Farba Ngom da koy de. may ma may ma ma wax fu muy jaar man maa la koy wax kay may ma rek day jaar xorke jeere jaar aañam dëkk dëkk Farba Ngom. déedéet. waaw may ma rek day ñëw xolal kanel xam nga kanel. fa problème ba amee woon ñu naan am na ay nit yu ñu jëlee ci ci fleuve bi ñëw ñuy voté Ousmane tey tey ci guddi gi lu mu guddi guddi guddi dana fa dem incha allahu rabbi xam nga fa lay fanaan dooma laaj fi muy fanaan. acca ñëwal ñëwal. Eh, wàññil ma boobu yow tuuti ma wax li wax fii xam nga fan lay fanaan. mbaa nanguwul kër Farba. xam nga fa nee ma fan lay fanaan. fan lay fanaan fan lay fanaan. wura soogi. Eh? waa waa jënd ki doon coupé suñu internet Moussa Bokar Thiam mooy maire Ourossogui. déedéet waay Ousmane fa lay fanaan tey man maa la ko wax tey jii tey. déedéet waay. xoolal fa lay xoolal ci miti xoolal gis nga convent bi mënoon lay jaar jaar ci dëkk yooyu Kanel Korka Jeere Boseya Amadou Xunaare Ndendoori fi phosphate bi nekk. Ndendoori Ndendoori. fa phosphate ba nekk. Uh-huh. fa Ousmane di jaar tey war a xor ka du ji ji. to ah. kan nga wax Ousmane ne des na may ma tuuti. tooñ bi gën a rëy nag dakkatul day fanaan ci dëkkam bi ba pare su le vingt cinq suba non suba safar suba le le suba ci la Ousmane di def meeting ci estatu Matam. déedéet non non non Ousmane sañu loolu. barki Nabil Moustapha du ay caaxaan. waa léegi Ousmane lan la war a bàyyil Macky Sall. Ah? lan la war a bàyyil Macky Sall. déggu ma li ngay lay bàyyil Macky Sall du ko bàyyil dara. léegi Ousmane <laughs> xoolal kaay ma wax la kaay ma wax la am na beneen sew sew bu nekkaat ci biir man Pape Ndongo maa la koy wax. mooy ne tey su defee cap su defee caravane am ba egg si Wuro Sogi ba wax ak waa Ourossogui ba fanaan fa parce que Ourossogui am na hôtel bu Ousmane xam bu fàtte élection deux mille vingt deux yi Moussa Bocar Thiam da ko waxoon doo fi dugg mu dugg fa fanaan Ourossogui su xëyee ba yeewu dafa war a def caravane léegi nag ñaar moo am ma jox na ñaar yi nga bàyyi ci xel bu subaa jàmm incha allah ndax du yeewu rek dem ci meeting bi déedéet parce que meeting bi guddi la waaye Ousmane dafay ñaar lay def yi ma gëm man la loolu la war a def mooy. day wàcc si Ranéeru ñëw Linguère dëkk Habib Sy ñëw Daara Jolof dëkk El Malick Ndiaye pour wëññeekuwaat dem def meeting bi Matam wala ñaari laa déglu bu baax li ma wala beneen bi mu continuer su ñëwee wala soo gi fanaan fa xëy taal konvaam romb ñoom na baaji dem ba ca kaw ci yoonu saint dem ci dëkk yooyu ba ca kaw ba sori ba ay croisement terrain ji ay galaya dëkk yooyu mu retourné waat ñëw maatam def mitinam ci guddi ñaar yi maa la ko wax man Pape Ndongo allahu rabbi affaire bi kenn ko mais bu subaa boo xëyee benn bi mooy day wàcc si raneeru dëkk Aliou Dumburu Sow bi waxoon ne day yor jaas yi déglul bu baax li ma la wax wacc ci raneeru ñëw Linguère wala mu ñëw Daara Jolof. cëm waram doole daal xamul ndànk. bu wëññeeku bu ko deful loolu.

xoolal xoolal ministre xoolal benn patriote bi mu ne na ko yàlla yërëm ah. ministre Macky Sall yi ku dee. xala gongo demal wuy ma fi wuy ma fi jiji foofu laay daanele pour nga jox keneen xoolal patriote bi mu ne Pape Ndongo li ngay wax nii bu fekkee publier wuñ ko waroo koo wax yéen est ka que ay nit ngeen est-ce que wér ngeen man tey ci suba ci sama live ci laay wax ne Ousmane su génnee Tamba day ñëw Kothiari ñëw Goudiri ñëw Bakel ñëw parce que booy topp nit ki nga xam bu baax a baax fi muy jaar loolu lan moo ci nekk pour ñu waxoon ñaari buntu yooyu rek moo fa am jaar yoonu Saint-Louis wala mu wàccaat ñëw daara Jolof continue retourné waat dem dem Matam léegi loolu lu ci nekk ji ji joxal keneen ba ci kanam. jaajëf ak ñu continuer ci grand Abdoulaye. grand Abdoulaye ak. waa ji ji dina wax ni président Sonko Sonko Sonko wax naan nanu ñëw leeral. kenn ki wàññeeku e na mooy Moustapha Ba Moustapha Ba moo doon ñu ñëw mu ne kan leeral moo nekkoon ministre du ah, budget en deux mille vingt deux ba deux mille bu Louga waaj ñun Moustapha Ba bu Louga waaw salaamaaleykum salaamaaleykum sonko sonko xaar ma tëj sama sonko sonko ñu ngi lay ziar Pape Ndongo ñu ngi lay ziar waa kay wax noonu yow du maj noonu. non non grand Abdoulaye grand Abdoulaye. Ah, grand grand YouTube bi leer wala leerul. non baax na baax na baax na. non a eh, côté eh, eh. non côté YouTube bi la YouTube bi nee nañ oui ah kon donc YouTube leer na. non dafa am ñu bu leen fàttali dama taalaale YouTube ak Facebook. ah ok. acca grand ñu lay déglu Wa merci beaucoup Gigi. mais ya, Gigi 5 years juromi at a ngi ne ma lay top. musuma dugg nak sa live mais ah musoo taal live parce que ma di la sétane. grand ma ngi lay abonné ma ngi abonné ci yow bu soobee Yalla di nga duggati Yalla xam na ne sama njabot non lañ la bëggé. Ma sha allah né ne leen tamit ñom non la leen bëggé. dafa am benn kaddu gaa daan wax te bàyyi nga ko xoolal ma lii xoolal ma lii da ngay seet lii rek nga Ablaye nga baal ma waaye <laughs> sa njaboot gi bëgg nañ ko bon de ko xam fecc mbaras rek la nekkee ci tiktok <laughs> ku yees ku tekkiw dara démb ak barke démb ak tey grand Ablaye da ngay da ngay da ngay bi beneen bi ak yëlbu bi quoi yëlbu bi yëlbu bi Gara tey loo bëgg dama la koy may <laughs> boobu maa may jabar gi muy mel ni muy ni comme lu bu <coughs> mais nag ren na jooy na jooy yu metti quoi billaay yàlla xam na ko. wallaay. gis nga deuxième vague bi bi ñu gars yi demee ba jekkuñu. nga xam ne moment boobu boo yëpp a ngi géej. boo yaa ngi léegi mel na ne talatuñu sonk ñu ngi naan ay demboo génn ñu ne waa waa ji daal mu ngi kooma. mu sonk mais fan yooyu géej gi boo tëddee doo nelaw quoi. woo booy booy booy loolu loolu bu jàlloon Sénégal du ñu am jàmm chaque jour ma saw seen kaw. mais xam nga li gënoon a jaaxal sama xol gënoon a metti sama xol boo yëpp nekk géej nekk ci Wally Seck yeeg foo dem mu festel stade boo dem bëri yi talatuñu sa waay quoi moment boobu. yàlla rek a mën billaay yàlla lu ne mën a tali la rek. moo tax gis nga projet bi ah mais projet bi ku ko ku ko bàyyiwul xel rek xamal ne gëmoo yàlla quoi. wallahi lazim. léegi dañuy wax gàcce ngàllaama yéen activiste yi. waaye nag doo leen sax activité Sénégal ngeen bëgg. wallahi mais gàcce nga la waa France ñoom ñooy numéro un ñoo jël coupe ci diaspora bi. fekk ci waa New York. États-Unis nag waaye waa New York gàcce nga la ñoom. yii ay jàmbaar lañ. Guigui. xol yi jeex na ren ndax dama daan am benn waaju tudd Sadio mu ngi France foofu. Uh-huh. dama ko daan nax comme xale mag la mais da daan jooy ba bët set. moo tax projet bi. benn pré merci beaucoup ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax joué ngeen ci cent pour cent joué ngeen ko ci. macha allah macha allah victoire bi ñuy wax nii tey. yéen boo leen di ñëw Sénégal yéen ak ñoom Mola ñoom ñoom booy bi nu mu tuddati. kayis foofu idi idi idi kayis foofu mola mam seen booy malika ma mam mananda yéen ñëpp ngeen war a def benn say di wàccandoo avion ñu ñu taxaw fii ndax man deux ans ñi ci projet bi rek la ay xeex deux ans ñi man truck driver laa en United States ci Amérique ma allah mais man saa yu ma taalee sama euh, live man maa ngi lay seetaan gis nga fi nga commencé sànq ci ñoom Hélène Gaye ak consort yooyu. Hmm. ñun nañu taxaw rek xaar leen te ngeen waajal leen ndax li ngay def ni artiste bi baax na ci ndax ñoom franchement bi muy metti lu ne yëpp yëpp nañu ko ñoom. kon nag bu demee ba mu mel ni tey jii ñu ñëwaat bokkat rajo yi mel nañ defuñu dara loolu moon ànduma ci quoi franchement. wallaay non non daal. à partir leen di gërëm bu baax a baax seen taxawaay waaye boo leen di ñëw Sénégal ñun ñëpp nañ ko pare. incha allah mais di wax patriote yëpp ne le le quinze ku nekk na baax sa buntu kër commencé dóor sabar yi. maa la ko wax man maa la ko wax. man ku la bëgg laa xam nga nag sonko tooñkat la. dëgg tooñkat dëgg sax. am benn conférence dañoo am benn conférence de presse ma ñëw ba ci Guy Marius Sagna ma ne ko waxal ma sonko ne nañu bay ñom seen ñom seen yi ñom seen yi xam nga man seen la seenen la waaw man tamit seenen la di mais musuma xam lolu saway ah seen la sante de mais ba pare léegi dem dañuy mëkk suuf li di de mo ta dem nelawuma nelawuma de dem ak barki dem nelawuma de sama yaay ma njëkk woon sama yaay ma njëkk woon ma gis nga fi fu mu Sénégal fu ma mëna fekk yow ak ñom mola billahi ma ngi bunta aéroport taxaw di leen xaar Masya allah ñun daal ñu ngi préparé loolu ñu ngi koy waxtaane ci suuf nag ñu newoon nañ amoon nañ idée wu daal jéem a jël benn avion ñun ñëpp ñu wàccandoo ñëpp ngeen wàccandoo bon ñu ngi ciy waxtaan daal sotteegut mais am na suñu benn góor goo xam ne gis naa koo dégg te mu daan dugg laay fu kari sof sama nijaay la mais gis naa koo dégg du père Ousmane Dramé pa pa Ousmane Pouy Ousmane Pouy waa mi ngi fi de père Ousmane Pouy père Ousmane Dramé pa Abdoulaye Diop ñoom ñëpp a ngi fi waaye yow jëre ngeen jëf ji lii rek moo taxoon tey ma ne tey dinaa fexe ba boroxlu sa live gërëm la te bëgg naa am relation ak yow yu baree bari bari bari ñu ciy waxtaan. macha allah envoyé abonné naa ci yow bu soobee yàlla bu ñu jeexalee live rek dinaa la jox numéro bi ci suuf. abonné naa ci yow ok ok. ñëpp nag nuyul ma xale yëpp faalo yëpp waaye rawatina suñuy mbokku gambien yi nag. macha allah suñu mbokku gambien am na ñoo xam ne franchement nu ñu mel ci Ousmane Sonko. am na patriote yoo xam ne meluñu noonu ñoom jàmbaar la ñun ndax ñun ñoo nekk États-Unis te nu ñu nekkee fii di jàppale Ousmane Sonko ñun lu ñu woote fii ci Detroit Michigan ñoom ñu ngi participer ci seen lépp lu nu mën kon ñu ngi apprécier ñu ngi leen di biga bu baax a baax a baax a kon lii laa doon wax rek pour doxla sama feddale cofeel ak yow macha allah merci beaucoup grand frère macha allah grand Ablaye yow moo pare rek dinaa la jox numéro bi ci suuf macha allah all right bye bye maa ngi fa maa ngi rafetlu bu baax a baax taxawaay bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw ñu ñu